avec euh, le nouveau programme ils tendent vers ce qu'on appelle le tourisme culturel man kon ndaw si lan lañ ko fal ni directeur de de l'artisanat ab ab abda direction bi lañ ko jox agence bi quoi directrice euh, générale bu agence pour la promotion et du développement de l'artisanat mm-hmm. donc agence la quoi mm-hmm. Mm-hmm. donc foofu euh, soo xoolee articulation du ministère nee naa la benn ministre benn culture la ñu war a jëlee fi ñu ko fu mu nekk rek andi ko et le tour sera joué. Mhm. parce que da ngay xool les nouvelles orientations de l'état actuel. Mm du gouvernement actuel je ne suis pas là nag pour le défendre mais. quand non, on parle d'état bon, quand on parle d'état koy wax. non non non ah. non non secteur bu ma nekk la. Mhm. parce que ci laa nekk. Mhm. donc ni ñu koy articuler. ñi nga xam ne dañuy dañuy jóge ci tourisme balnéaire bi nga xam ne moom lañ tàmm gis dem fa ce qu'on a te mënuñu développer tourisme l'artisanat c'est 120 métiers yaa ma gën a xam. Mhm. c'est 120 métiers. Mhm. mënoo développer tourisme sans l'artisanat. Mhm. mënoo développer tourisme sans la culture. parce que su nekk amee nouvelle arti articulation noonu lay demee. maintenant ñi ngi dégg yeneen ministères yi c'est parce que le ministre ne fait pas beaucoup de bruit. elle doit faire beaucoup togg day ñor. ci naka. togg day ñor. le ministre ne fait pas beaucoup de bruit. nee naa la togg day ñor mhm. mi ngi def les les les technicien du ministère en fonction des orientations yi nga xam ne àndi na ko mhm. sont en de travailler mhm. te su ñoree les Sénégalais verront ci li muy liggéey lan la parce que orientation yu bees moo am ci secteur boobu de l'artisanat de l'artisanat et du tourisme et yooyu bu beesee dañuy dafay am une nouvelle articulation des choses jarul bruit bu bari jarul populisme jarul génn di wër caméra yi topp la non non non. ñan def lool. lui mi ngi ci liggéey bu am solo les techniciens ñu ngi ci liggéey yu am solo direction yi ñu ngi ci liggéey yu am solo. Mhm. maintenant suñu pare par rapport au tourisme et de l'artisanat suñu yekkee sénégalais yi nañ gis <laughs> mën daal loolu laa bëggoon wax quoi. Mm. sur cette sur cette mhm. question. mais mais ci nomination yi parce que sama secteur la ci laa ne. bon am na moi je suis un ci li ngay wax noonu. parce que ok parce que tourisme. tourisme actif ok d' accord culture tourisme ak artisanat. boo xoolee boo xoolee sax sport daf ciy dugg en quelque sorte. voilà est ce que sport daf ciy dugg. daf dugg mais l' artisanat il fait partie ak même dayoo la yor ak agriculture. parce que l' boo xoolee instance yi ñu toll nii. boo jëlee boo boo boo boo jëlee li fi xewoon jamono yi passé ci déguerpissement yeeg marché ambulant yeeg occupation sol public yeeg yooyu yëpp boo xoolee jeune boo ci jàpp am na métier am na métier boo xamante ni mënu ko liggéey. Mm. li mu mën a da à loolu moo ko yóbbu ci jaay. wala jël gaal dem. wala quelque chose comme ça loolu tax yàkkamtiwuñu loolu tax le ministère le ministère dans sa globalité yàkkamtiwuñu lu ñuy def. dañoo war a yàkkamtiwuñu parce que nee na non non non. non non xam nga c'est-à-dire c'est-à-dire xam lu <laughs> nee naa la quand on met en place un nouveau plan stratégique de développement. du caaxaan. je ne suis pas le porte-parole du ministre. je ne suis pas le porte-parole du ministère. mais dama nekk ci secteur bi. donc si les gens travaillent sur un nouveau plan stratégique de développement. en fonction des orientations de l'État. parce que su ñuy taxaw su ñuy wax état nag damay défendre état man Adama Fall. parce que je suis un agent de l'État. donc politique yi nga xam ni moom la état bi joxe comme nouvelle Mm-hmm. te moom la ñuy parce que chaque jour ci la mm-hmm. liggéey te peut-être sénégalais yi xamuñu mm-hmm. xamaguñu li ñuy liggéey lan la parce que peut-être ils sont très pressés faut communiquer donc waaw non c'est pas un moment de communiquer le temps de ah la communication dafa am le temps de la communication sur cette affaire sur ce que les gens sont en de faire dafa am nee naa la ku nekk ministre bu nekk ak démarche ministère bu nekk ak démarche am parce que aussi en deux mois trois mois mmh. les jalons du développement d'un secteur mhm. du gaaw maintenant nag li ngay def mooy populisme dem ci ministère yi or le ministre a choisi euh, le ministre du tourisme et de l'artisanat li mu tànn mhm. mooy liggéey defar document yi ba pare mhm. partager ba pare dérouler su ñuy dérouler on va appeler les acteurs su ñuy dérouler on va tout le monde ñu toog ñu dérouler et su ñu dérouler. Mhm. les sénégalais verront. Mhm. li nga xam ne li ñuy def puisque ñoom la concerné. Mhm. les sénégalais verront ndax ñu ngi ñu ngi koy doxal bu baax wala doxal bu baax mais pour dire. en fonction des des nouvelles et du changement systémique bi nga xam ne moom la état bi def. mais attends <laughs> les gens sont en train parce que la la ligne est claire. la ligne est claire par rapport à moom la ligne très claire les orientations xam nañ ko li ñu war a def xam nañ ko et on est en train de travailler sur les nouveaux plans de sur les sur un nouveau plan de développement stratégique de développement affaire yi ñu ngi koy defaraat mais su maree les les gens du secteur de de l'artisanat et du tourisme du ñu mer mais ci nomination yi kon ànd nga ci ni nga xam ne nag moom la xam nga nomination du ci discuter waaw ah. constitution bu Sénégal moo jox pouvoir président la République mu nommer au poste civil et militaire mm-hmm. ni ma ko doon waxee démb ci ba ñuy wax ay mbirum Aliou Sall ak euh, Mansour Faye ak Karim Wade ak nangam sangam. Mm-hmm. noonu laa koy waxee tey pouvoir discrétionnaire u président de la république la mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre parce que nomination li ci ëpp solo yëpp 70 pour cent yi c'est la confiance saa yi su ma la wóoluwul duma la fay. du la fal su ma la wóolu loo am am am am compétence yoral diplôme les diplômes du monde te wóolu ma la du ma la fal parce que la confiance trois trois trois trois yii moo nekk ci nomination compétence expérience confiance te confiance moo ci ëpp solo c'est soixante-dix pour cent kon partage du gâteau bi nag xam nga loolu ay déclaration homme politique la rek homme politique yi ni doon déclarer démb moom la ñuy déclarer tey parce que li tax coow li bari nii ñoom ñoo porté woon combat bi démb ne warul am. ñoom ñoo woon démb ne warul am loolu moo leen topp mais nit ku su amee compétence bi am na ko c'est-à-dire je parce que am na am na compétence bi. mooy maanaam il a le diplôme requis parce que compétence aussi il a le diplôme requis mm-hmm. wóolu nga ko à 70 pour cent wóolu nga ko mais temps où est le problème nga war ko fal ba mu jaloon tollé bi fi amoon du temps de de parce que tollé bi mi ngi commencé du temps de Wade parce que Abdou Diouf avait nommé Maguette Diouf personne de amuloon débat. Mm-hmm. non dama ne amuloon débat. parce que jamono yooyu ak dama ne dama ne amuloon hmm? les acteurs politiques ya fa newoon dans le temps. Mm-hmm. duñu woon débat sur ces questions là parce que dañu nekkoon dans les dans ce qu'on appelle gouvernement euh, républicains mm-hmm. principes yooyu soo ci taxawee xam nga ni président de la République moo am pouvoir discrétionnaire joxe ndomba tànk mm-hmm. li tax coow li bari mm-hmm. c'est parce que coow li dafa amoon démb te ñi doon porter combat bi démb ñoom ñoo def loolu mais loolu bokkul différence da ciy am. parce que non non non différence amu ci xam nga tax. dafa am sénégalais yi sénégalais yi waxuñu nii. sénégalais yi peut-être xamuñu nii. Mhm. Ousmane Sonko nijaayam gouvernement la nekk ministre la. comme kii. c'est pas un problème pour moi Daouda Ngom est ministre de la République. oui c'est son pa c'est son oncle. Ah. c'est son oncle. mais il est engagé dans le PASTEF il a les compétences. oncle ba rakk yaayam. oui. lu mu bokk lu mu bokk ak yaayam. maire. Kumba Xadi Ngom ak Nafi Ngom ñoo bokk. Nafi mooy magu Daouda Ngom. lu ma jëmmi Daouda Ngom ak bokk. ñoo bokk. daal luñ bokk. luñ bokkul. nijaayu Ousmane Sonko bokk ñoom ñaar. ñoo bokk baay. kuy seen baay. xaw ma ko. Ah. parce que man pour man c'est pas important. xam nga xam nga xam nga sëñ bi. xam nga sëñ bi sëñ bi sëñ bi ah. sëñ bi sëñ bi man loolu c'est pas important pour moi. ah moo tax man loolu. du moment où du moment où defal ndànk non defal ndànk defal ndànk c'est-à-dire man xam nga man. dañ ciy soxla yeneen preuve yu gën a j'ai dit xoolal ah, xoolal xoolal du moment où on a ko may ma tuuti non may ma tuuti du moment où defal ndànk mm-hmm. du moment où on a confiance à Daouda Ngom mm-hmm. et qu'il compétent sama yoon newul ci loolu waaw d'accord par principe non déglul rek déglul déglul waaw ah. Fadilou Keita mm-hmm. cousin Ousmane Sonko la ci ban côté mais côté ndey. déedéet yow baax yow de ma la gisee nii ñu sant Ngom ñu ne nga boole leen ak. déedéet foofu nga toll déedéet. wallaahi wallaahi xolal wallaahi xolal xolal xolal xolal xolal. yow ma la gisee nii. non non non hmm. non non non. yow maa ngi ñëw léegi. maa loolu dérangé wu ma. Hmm, hmm. waaw déedéet est-ce que tu comprends. xam nga dérangé wu la waaye damay bañ itam nga jël repère. looloo am wala nga jël déglul wala nga jël. position boo xam ne yow. li ngay li ngay wax doo ko leeral. dama ne dama ne xam nga diw ngom la sant diw ngom la sant man xam naa ko. yaa ngi hmm. li ma wax hmm. demal nga saytu ko déedéet yow yaa ko war a seet. waaw déglu rek non attends attends attends ah. Ah, déglu rek déglu déglu hmm. déglu maanaam yow mi indi na lii am na. yaa war a wax nit ñi lii tax ñu ne. déglu baax li ma la ah. dama ne. dama ne. ah dama ne ñoo bokk bàyyi. naa leen kuy seen bàyyi. xaw ma ko. ah kon yow xamoo leen. def wérul déglu rek déglu rek waaw déglu rek waaw lu la neex wax ko. kon lu la neex wax ko maintenant. je dis ndomba tànk njiitum réew moo koy joxe. loolu d'accord naa te ku mu wóoluwul waru ko koo jox. Hmm. mais nag du ko joxee nu mu ko neexee. dama ne dama ne mais mais est-ce que joxe bi gis nañu gis euh, baax la dama ne. da koy joxe nu ko neexee. loolu tant que soppiwuñu constitution bu Sénégal. Hmm. da koy joxe nu mu ko neexee. loolu la hmm. c'est-à-dire soo nekkee ci république da ngay tënku ci charte bi moom réew république bi tant que constitution bu Sénégal moo ne. président de la République mooy nommé pouvoir civil et militaire balaa ñu laa nome dafa am enquête de moralité bu ñuy def ci yow en fonction des diplômes déclarés et de ta moralité. Mm-hmm. waxuñu da ngay bokk boo doo leen bokk ndey waxuñu doo leen bokk baay doole leen parce que texte yi waxu ko moom wax na ko sànq texte yi terew ko benn yoon benn yoon benn yoon. donc da koy def non déglul. déglul dama ne dara nekku ci. dara newu ci. non dama ne déglul baax li ma la dama ne. Mhm. est-ce que vous vous allez interdire au président de la République de nommer une personne compétente pour développer ce pays-là. fistule son petit frère. Eh, xam nga lan mooy wax ji Adama Fall ni niñ ko bañee woon ci Macky ak ak ak Alioune noonu lañ man li nga bañ man yow li nga bañ yow non déglu déglu man ni ma ko défendre woon ci jamonoy Macky laa koy défendre ba tey moi je suis cohérent dafa fal frère am non dama ne l'important c'est pas est dafa fal j'ai dit est-ce que Diomaye est-ce que déglu est-ce pal bi ñu pal war na ko fal wala waru ko constitution terewu ko. d'accord nag waaye Adama nag. Euh, euh, euh, suñu bopp moom yi ministre. wallaahi Ousmane Sonko wallaahi wallaahi nijaayam la wallaahi ak waxtu yàlla bii nijaayam la ku bokk ak sa yaay sant nga di ko waaye nijaay loolu xamees na ko déedéet Sénégal loolu baax na déedéet waaye man damaa defe ne hmm. li gën a la moindre des choses nga wax seen turu baay moom borom. xam nga xam nga xam nga xam nga il est dans des dans des man fi may fi may duggee ci débat bi. mooy déjà euh, sànq li Adama Fall wax. par rapport ak culture ak li ñuy wax ci artisanat yu demee noonu. Mhm. parce que là aussi dañu soxla vision globale gouvernement bi. Mhm. parce que bu ñu amee vision globale bi dinañ mën a xam fan lañ jëm. Mhm. nit ñi bu ñu waree wax ñu xam ci lan la ñuy wax. mais c'est compliqué fi mbir yi nii yaa ngi wax moom mu ngi ci secteur bi te comprendre ñoom fan lañ jëm. non parce que Adama Fall li ma bëgg gëmloo ne mi ngi liggéey mi ngi préparer ay dossiers. mi ngi kër si kër loolu man suñu. préparation loolu loolu mën na nekk mu wax nii. non mën na mën na ne mën na préparer parce que état buy door a démarrer. nga xam nga soxla transparence. mais trois mois la sur cette question. sur cette question artisanat mooy xam nga secteur lu koy rey xam nga secteur lu koy rey xam nga luy rey secteur ah. ñëw rek def bachotage non non non non non déglu rek xam nga man xam nga Adama xam nga man fi may waxee man fi may waxee man man li ma bëgg a wax sax nekkul ci par rapport ak nekkul ci par rapport ak li ñuy doxal hmm. mbir mi balaa ngay doxal hmm. da ngay xam fi nga jëm fan la hmm. vision globale bi ñuy laaj c'est-à-dire ci artisanat le ministre ñëw ne man lii mooy sama vision. non non non c'est pas la vision du ministre. non non non non non il faut qu'on précise nag vieux il faut qu'on précise mooy non déglu non non secteur bu ma nekk la. waaw xaaral xaaral non li muy liggéey ci loolu laay liggéey lan ngay liggéey Adama maa ngi fi ñu nekk Adama parce que yow ci biir secteur bi nga ne man ñëwaguma ci biir secteur bi ñëwaguma ci fond la vision globale du chef de l'État c'est clair par rapport au tourisme de la parce que gisaguñ ko da ko gis Adama ah, nañ ci bañ a la vision du chef de l'État mën nañ ci bañ a d'accord effectivement ba vision du chef de a man fi may waxee. Mhm. mooy ces orientations là. Mhm. président bi daf ko war a décliner ñun ñu xam ko. yow li ngay wax c'est par rapport à son ministre mhm. ministre bi xam na fi président bëgg a jëm mais ñun askan bi xamuñu fi mu jëm mooy li kii di laaj sànq et loolu c'est important parce que ministre bi waxuñu mu ñëw wax ñu maa ngi teg pas dem deux dem trois waxuñu loolu li ñu soxla mooy nañu ne lii mooy sama vision ci liñ ma jox non lii non lii mooy vision président ci li ma bëgg a doxal non mm. ah mais ban ah. ministre nga dégg muy wax fii mais juste mais li a mooy problème bi ah, ah, li kii laaj waaw coordination gouvernementale <laughs> parce que gouvernement dañuy am coordination kii warul ñëw di def lii kii di def lële mm. Mm. donc tey bu ñu gisee kii di joxe vision que la joxewul vision am yaa am eh, kay vision kay lu muy def moo koy joxe non gis nga vieux dañuy ah. waxtaan quoi c'est-à-dire si nous sommes des intellectuels dañuy waxtaan mm-hmm. ce que je veux dire mm-hmm. la déclinaison du programme du tourisme et de, l'artisanat de la vision du chef de l'État oui. c'est clair non ah non déglu rek waaw mais ñoom ñoom ils ont leur projet. c'est c'est xam nga grand xam nga waaw defal dañ ci waxtaan ak mais le sénégalais lambda qui soxla information mais lan mooy lan mooy vision. xam nga très bien maintenant le sénégalais lambda lambda. doit attendre la déclaration de politique générale du premier ministre. Et puis Aram yow xam nga fan ngay juumee. Abdoulaye du ndaw rek fan lay juumee man j'aimerais bien que nga boole tourisme ak culture mais l'artisanat xaaral ma wax la tamit artisanat xam nga mooy lan parce que baykat bi. baykat bi muy agriculteur bi balaa muy dem ci toolam foo mu sol dàll. foo mu foo mu sol yére. Mhm. foo mu am fu mu dëkk. doo ko mën a dem bayi ñoom ñaar dañoo link l'artisanat et l'agriculture. non non non non non. tout dépend de la vision du chef de l'État le chef de l'État voit que pour développer le non defal ndànk rek non dama ne ministre de la culture ministre du tourisme ah. mm-hmm. dañ ko articulation bi dafa ànd ak artisanat ah. mais damaa jàpp ne dañ ci war a dugal culture dañ moo defal ndànk rek waaw déglu ndànk ah. ñoom ñoo war a grand nag si nga la la déclinaison mm-hmm. parce que moom mooy vision globale bi parce que da ngay tegu ci artisanat l'artisanat da nga ciy tegu pour mën a jóg parce que pour pousser les touristes à venir. non c'est-à-dire dégloon ndànk rek yow loolu nga jàpp yow li nga jàpp. yow yow non non li ma la jàpp boo ma dégloo ma wax la. artisanat la rek waa déglu rek waa déglu rek. un gouvernement qui est qui a bien structuré ce qu'il fait. Mm-hmm. jàpp ni la déclinaison c'est le ministère du tourisme et de l'artisan ils vont de pair man ma jàpp ni avec la nouvelle politique du tourisme quand ñu toog ne dañuy def ce qu'on appelle le tourisme culturel. waroon nañ ci mën a dugal culture parce que tourisme pour bal na balnéaire moo fi am tourisme euh, safari ak tourisme découverte ak nangam maintenant l'état le nouveau état le nouveau pouvoir en place il veut développer le secteur les secteurs le les les zone historiques de ce pays là pour pousser les Sénégalais à aller vers ce qu'on appelle le tourisme les touristes sénégalais ñoom mën a dem nan nga xam le tourisme local waaw rek waaw non attends xam nga xam nga nga nag xam nga nag xam nga nga xam nga problème bi la xam nga parce que dafa mel ni dafa nekk benn non Adama dafa mel dafa nekk benn sénégalais. Ah, moom tu n'as pas compris tu n'as pas compris ce que je veux dire dans l'articulation man su ma nekkuloon. waaw dama naan non dama naan mhm. wax naa leen fii. Mhm. quand on parle de l'État. quand on parle de l'État. man mënu ma nekk agent état. Mhm. mu am une nouvelle vision une nouvelle articulation du tourisme ci secteur bi ma ne. te du ma ko partagé. mais on doit le savoir. justement man foofu man d' accord naa li ngay wax mais dama ne. Hmm. Adama dafa mel ni yow rek yaay benn sénégalais bi xam. ñoom mais c' est on n' a jamais posé ces débats non mais ah. justement dañ ko war a ñun ñun boobu ba léegi ñu ngi koy laaj man sama. non non non j' ai dit occasion. le PM dem def déclaration de politique générale waxaguñu loolu. ñun li ñuy wax mooy vision globale. te boo amee vision globale pour wax. mais dañoo nommé kenn suñu secteur. dañoo nommé kenn suñu secteur dama ne ki ngeen nommé de l'artisanat xaaral rek en tant acteur de l'artisanat mais dafa ministre de a il a a l'artisanat. li ma gis. Euh, kooku kilifaam de wala du du xaaral rek xaaral rek ma wax la. xaaral rek ma wax la parce que man ministre de l'industrie et de la et ministre. yow est-ce xam nga ministre du tourisme ak de l'artisanat xam nga ko xam naa ko mais jàppuma tur bi. kan mooy ah, ministre bi. c'est Mountaga Diawo. c'est lui le ministre du tourisme et de l'artisanat. dégg ba léegi ñun gisaguñu ko déggaguñu ko. xam mais c'est parce que non attends. xam loolu mooy différence su peut-être Mabouba ak yeneen ministres. ban ministre nga fi gis muy génn di wax. Eh, Moussa Balla Fofana mu ngi génn oui mais El ah, Malick ah, ah, ngi ils sont dans des secteurs problématiques. ils sont dans des secteurs problématiques. non non non non non. xam nga nu mu demee. mooy demee am na problème de. dama ne amul tellement de faire choses ah, ah, defal ndànk rek. y a tellement de choses parce que dafa amoon articulation. Mm. c'était arrimé au plan Sénégal émergent. voilà. oui tourisme du Sénégal. Mm-hmm. ministère du tourisme dañ ko boolewoon ak transport ak ak nangam sangam. aujourd'hui bi bii passé ñu def ko ministère du tourisme et des loisirs. bii ñu ñëw dugal ko. Mm-hmm. parce que tourisme Sénégal c'était arrimé au plan Sénégal émergent. aujourd'hui le tourisme du Sénégal doit être arrimé au projet. Mm, émergent li may wax dama bëgg nga déglu ma. maa lii dafa tënkoon ci sa e. mhm. léegi bii dafa war a tënku ci projet. war dafa dafa war a am articulation yu yu ba yu bees wala du war warul am. dafa war a am ay yu bees. effectivement parce que su waree tënku ci projet. Mhm. orientation yi leer. ñoom ñu amoon ce qu'on appelle leur programme par rapport au tourisme et de l'artisanat mhm. mais loolu loolu ci loolu la ñuy liggéey. d'accord man xam nga man li ma bëgg a ñëw mooy. Adama d'accord nañ ci li ngay wax. cest ci logique bi on est d'accord mais man li ma orientation yi nga xam ne yow xam man loolu mooy sama problème cest à xam nga lan orientation wu ministre bi alors que ñeneen sénégalais yi xamuñu lan mooy orientation mais ñi nekk ci bi xam nañ non non non ñu nekk man dama bëgg d'accord ak yow ci loolu maintenant maintenant maintenant parce que parce